do bor biñ ñëwee fii problème bi mooy dañoo bëgg a dugg ak soo xoolee ñu si voilà suñu situation yëpp ñu ci biir ci liste bi waaw waaw je sais que ne yow peut-être xam nga problème bi ndax ñun xamuñu woon ne dañoo yóbbu beneen bureau de vote dañoo changé bureau de vote léegi li problème bi mooy liñ bëggoon mooy su dee gars yi mën nañoo permettre ñun ñu dugg ak carte ñu yor nga xam ne nguur moo ñu ko defal moo ñu wax ne fii lañ fële lañ waroon voté ñu dem fee ñu ne entre temps changé nañ ci biir lieu de vote mais soo xoolee carte bi différence bi mooy moom mooy juste lieu de vote filiation bi yëpp c' est pareil kon donc ñun mënoon nañoo am dérogation mën a dugg voté comme tout citoyen boo xam ne am nañ droit vote loolu lañ bëggoon nga ñaanal ñu ko su dee mën na nekk non su préfet kay il defal naa defal naa mën na nekk wala ah. parce que xam problème bi mooy li ah. nga xam ne dañ nekk ah. So I'm a deputy cutter. tey yow lieu de vote bi bi bi bi nekk si sa carte. dootul nekk fii. waaw loolu moo changé. léegi nag aussi ci liste yi. sa tur mën na bañ a nekk fii. xam nga fu sa tur nekkul doo fa mën a voté. foo xam ne tamit sa lieu sa lieu de vote doo fa mën a voté. loolu mooy problème bi ndax boo duggoon tey ci biir siège en parti yi. suñu xoolee ñoom liste yi ñu yor sa tur bi ci nekk. loolu moom non non non. da ngeen di def rek dafa ndànk rek. exemple la. ñun suñu tur mi ngi gis waaw ah, déglu déglu déglu déglu am nga tey boo xoolee kii ñu ngi def école Parcelles Assainies unité 11 bureau numéro xam nga loolu lañ ko defal. waaw te léegi boo xoolee fii. école Parcelles Assainies unité 11. zone de recasement. voilà ce qui veut dire que carte bi tey. war a dugg waaw man fi la mais boo xoolee. taxawal boo xoolee. aw ma duplicata. waaw te dañuy ñaw ma duplicata. duñ voté fii. voilà te man aw ma duplicata te voté naa fii. waaw kay ak sama benn grand. bureau 3 lañ war a voté ñun ñu aw ma duplicata. non non. waaw waaw waaw demal nga wax ak ñoom. waaw dina dem dina dem ñëw dina dem ñëw waaw. amiin jaar na ko jaar na ko